gens les gis nga àdduna bu mu la jay ba nga fàtte ki nga fàtte ki say su yéegee ci seen sa tur fu fu nekk la koy yuuxuwee àdduna bu la jay ba nga fàtte ki nga xamante ne danga dem ba Europe daw nga ñëw

dara du tax nga toog fa mais bul fàtte ki nga xamante ni def na tout pour yow ki nga xamante ni fu mu toog jël micro mi yuuxu na sa tur ba ba tey ñu ràññee la. voilà donc euh, am na am solo daal neen defar affaire bi yëpp rafet te di boole waale ak si. Ndiaye Pouzo.